gën tëdd ci weer yi weer boobu nag luñ ci sàkku rek loolu dafa war a jaar yoon loolu moo tax nag ñu doon mottali eh, li des ci suñu waxtaan ak suñu mbokk enseignant yi di suñuy doom nga xam ni ci ñun la ñu jóge ñun tam kazalika eh, wattali waxtaan wi nag ñu ngi seet ni ñu ko defee comme ni ñu ko waxe woon ndax waxtaan wi jeexagul danaa jeex ñu dajewaat ak état bi waxante ak ñoom ak ñoom enseignant yi euh, da ngi seet Bachir Abdoul Khadre ci turu Sidi Mokhtar ñu waxtaan président démb euh, jaar na fi bi mu fi jaaree itam junj naa ko li nga xam ni moom lañu ñu d'accord te moo di bàyyindi yëpp mu tëdd ba xale yi mën a def seen examen ni mu waree waaye ñoom itam ñu reprendre seeni revendication ñu ànd ci ak ñoom wutale leen solution ba ba koy am ndax dañu bëgg nag senegal daal nekk model ci wàllu enseignement beeg lépp yu ndaw ndawaan yi fiy am ci coow ci wàllu njàng mi at yii yëpp ñu fexe ba jeexal ko benn yoon ci waxtaan woowa waxoon naa président ni ko daa danaa seeti ba Cheikh Abdul Qadir ba ca Baye Niass ca Kaolack ba ca Yoof ca suñu mag Abdoulaye Thiaw ak ñoom ñi ñu toogaatan nag ak état bi waxtaan seet li nga xam ni moom lañu d'accordoon li nga xam ni moom lañ ci mën a def ci teew mi teew ñu jéem koo def li nga xam ni itam dañ ci war a seet pexe ñu delluwaat seet ci pexe te ku seet pexe danga ko gis xam ne doomu aadama mënul tiim ñëpp rek ko defee ñun ñëpp ñu bàyyante loolu xel kenn waru ci mere sa morom gedd ko walla mere sa morom ba doo wax ak moom li nga bëgg a wax ak moom muy état muy enseignant yi ñu nekk ci diggante bi nag di ay war ma njuukaan ñooñu ngeen di leen bañ leen déglu ndax ñoom bu ñu sañee réew mi commencé tàkk te bu tàkkee du leen amal benn njëriñ waaye rek na am ñu ni ah Sénégal ngay takk nangam nangam problème fii problème fa loolu nag amaluñu benn njëriñ li ñu amal njëriñ mooy ñu liggéey déggoo waxante lu wér suñu waxantee nag loolu ñu waxante ñu fas ko ba kenn bañ cee génn bu fekkee état bi moo ko wax ak enseignant yi na ci ci takk bakkanam ba bu mu ko weddi maanaam bu ci jóge bu fekkee ni enseignant yi ñoo ko wax ak état bi ñoom tam la ñuy wax ak état bi niñ ko téye bu wér bañ ci génn dellu gannaaw loolu su dee am rek ñuy sàmmante kàddu yi Euh, liggéey bi dafay daal di yomb rek dañoo war a juboo waxtaan ba juboo moo gën yenoonte yet ba fa mu yem te wóoruñu sax boobaa juboo dana am wala du am ndax gis nañu réew yu bari commencé woon ko waaye mujjul fenn su ko defee na kon loolu moo waroon seen dellu si tey ñu di ko waxtaane bi ñu nuyoo ak président démb itam junju nañ ko ko mu ni ma pare naa incha allah pour ñu toog jataay boobu nga gis bas Abdul ak ñu ngeen ci war a ànd rek bu ngeen ñëwee ñu waxtaan waxtaan bu rafet waxtaan woo xam ni daañu am solution a ah, ñu bëgg ci ñaanaale itam te danañ ci waxataan ak moom yenn position yi nga xam ni ñenn nit ñi amoon nañ ko di convoquer yenn enseignants yi euh, sama baay dafa sebu buy tàkk kenn du ca ji gerte kon du sax fu ñuy wute jàmm kenn du fa créer problème bu fekkee dañ leen waxoon nañu convoquer les enseignants wala nañ leen defloo di leen def loola mais loolu commencé nañu waxante xamaguñu fu muy teer loole ñooñu ñu ko jox moo xam ay policier ay police la moo xam gendarmerie la nañu arrêté yooyu waaw nañu ko arrêté ba waxtaan wi sës ndax sësagul waaye itam ci sës fu baax rek lay jëm incha allah su ko defee kon nag ñoom itam ñu bàyyi loolu te loolu danañ ci ñaan président mu ñaan e, ñi nga xam ni ñoom la teg loolu ci seen loxo ñu arrêté loo ñoo ñu di convoquer les enseignants di e, leen jéem a xoqatal loolu àgguñ ca waaw loolu àgguñ ca te yàlla buñ ci àgg su ko defee kon nag ñoo itam ñu ngi leen ñaan. bu ñuy defar ñoom tam nañ bokk ci defar bi waaye ñuy defar ñuy yàq kooku gënul waaw kooku gënul ñu ngi leen koy ñaan rek li ci laahi taala te état waxuleen leen ko nag état moom li wax rek ñu seet solution nu mu mën am bu ñëpp tal seen bopp xale yi def seen examen ni mu waree jàngalekat yi tal seen classe loolu lañu bëgg waaye nag leneen xaju fi lu fi nit bëgg a doxalaale pour sa fi bopp déedéet loolu duñ ko nangu ñu ngi leen di ñaan ñu arrêté yooyu ba yàlla indi jàmm incha allahu jàmm jooju ñu topp ko ba yeneen jiw sax mën na ci jóge su ko defee waaye kenn bëggul coow su ko defee bu ñu dee jaxasoo eh, rek danañu man di yéwénal yu bëree bëri ci li yàqu kenn ku nekk am satisfaction euh, su ko defee suñu enseignement dafay nekk bu exemplaire te Sénégal yàlla moo ko defal lu mu def rek ñu bari roy ko waaw ñu bari roy ko kon nag ñu delluwaat ca manin bu njëkk ba euh, di balu àq ñëpp nag di leen baal àq yal nañu yàlla boole baal tabaarkallaa te defar réew mi gën jaa rafeti defarin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.